ay baaxut ndaw dañ koy tàggat ba moom aw yaramam waaye ndaw luy dox def nii ah koñor koñor wala boor loxo ya wala teel a yoru kurus mbaa teel a kaalawu laaj ko suñu ab laata xale ba ah rek def nii di nuyoo suñ bi nuyu ko ba noppi ne ko takk nga soxna xale ba ne ko déedéet mu ne ko ngay kaalaw ah. léegi nu may def mu ne ko ku tëkkagul soxna day laxasaayu jëlal kaala gi def ci ndigg li boo tekkee jaba soxna ba am juróom benn weer te fase woo ko kaalawul jot na <laughs> wax na dëgg de teg ko soxna am ak moom juróom benn weer dara xewul jàmbaar nga ni pourquoi juróom benn weer ah mbàkki jigéen sëhrul asal bu jeexee mm, ceetu gi bu ruusee. weeru njëkk yi moom xam nga séet kenn du ko mere musuma koo gis benn yoon boog laa ko mos a dégg tekk séet bi séet bi ak si ñu koy ganale mu xool njëkk ñu ko dëgg la nopp yi nekk day kaf jëkkër jaar koy fase ndeysaan ak bu ci dégg mu ñëw gaaru ceer daan ne bàjj daan ne bàjjenam ba jëkk bàjjen di ko indi woon néeg ma waccati nañ ma waaw boo jigéen ñaaw day na xari baat ngeen baal ma yéen ñi ñaaw ko bàjjen néeg ma waccati nañ ma waccati nañ ma si daal yàgg nañ koy wàcc moo loo defati ne dama ne ko dëgg laa nopp yi ana siiti ko wax noppi jaama. mën naa waxtaane mën naa waxtaane leneen. kon ndaw buñ defaree yaramam ba mu am physique. aha ñu wax ko nag physique boobu fu mu koy def bu dee ci tubaab daf lay defar ba nga am physique mu ne seetil jigéen ñi ah l'islam da lay def lu physique ba nga am physique mun a jaayal physique bépp sa borom tabaaraka wa taala ne physique bi jeex ci luy gëm luy bëggloo yàlla ah foofu nga koy jeexal foo kullu man baadara waxta sixari ilal huda staraa waxtal kibari ku teel a boo màggee yow noppalu boo ko yara al jismi ba yaram mi baax nga yar nag jaanibu ru nafsi moom tam nga yar ko yar nga roo yaral nafs nafs mooy ki nga xam ne bu nit ñuy def lu baax mu ne mënoo lépp bu ñuy def lu bon mënoo defal lépp ku koy nafs al amaara bisu bu ñuy def lu baax mu ne mënoo defal ñëpp bu ñuy def safaan mu ne tey da ngay seen jàngkat yi nekk grand théâtre danañ danañ wax yonent bi daañ wax bilaal ñoom lu la nañ ko wax waykat boobu ñëw fe rek ne ay rek ñu commencé ko baatare yow lu ma xamul aay kan la wax mooy waykat yi di wax aay aay waaye koy wax naa ko Mbàkke nee naa ko Sénégal juróom benn waykat laa fi xam ñaar ña gaañu lañ ñeent a fi des juróom benn képp na laa wax te man loolu laa jàng nag al adabul arabi littérature arab man loolu laa daan jàngale sax may jàngale daanaa jàngal gone yi ñuy jooy parce que man ah, loolu laa jàng <laughs> waaye <laughs> dama ci bañ a mosal far tànt bi jaxasoo quoi <laughs> waaye nun bu nu déggoon way waykat yu bëri xew waaw dëkk bi ni mu bëree way waykat yi fi nekkul ni mu bëree mbër bërekat yi fi nekkul ni mu bëree politicien politicien fi nekkul te ku deful ñett doomu xaalis fu ñu jëm ndagar mbaa doomu xaalis ah bëree mbaa doomu xaalis politique mbaa doomu xaalis moo tax ñëpp doo wuti politique ba ñëwuti làmb ja suñu borom moom it commencé nag comme fi ngeen jëm du foofu danaa leen dëpp waaw léeg-léeg mu ne làmb ji nii wéy léeg-léeg mu ne pecc ma nii léeg-léeg mu ne politique bi nii ci semaine bii rek nu génn nag laa wax yëpp yàlla laal lépp ndagal wala yàq mu ne fa nii coow la topp leen yàlla waaw wal ba ti ko ne làmb ji kuruj am déet barki démb xaw ma démb sax ci assemblée mu ne politique ba kuruj gis nga boo toggee cere bëgg lekk ba suur tibbalal yàlla dooru tàmbali wa man aarada an dikri fa inna lahu azizun danka wa naxsuru yawma alqiyamati ama waaw ndaw loolu kon yooyu ngay defar ci moom su ko defee li ma doon wax shaxsiya mu am personnalité loo ko mooy day toppandoo rek toppandoo koo xam ne ki yaa ko raw fan koo xam ne ki yaa ko man te gis nga ko fi fan ku jëm góos boo lëggee góos nga jëm waaw almaru maa man ahab ku fi fan ku jëm góos waaw laaj ko laaj ko iblis ba mu taxawee yóbbal xiyaam euh, ñu ko faawoon ànd ak moom sa war a fees del ak ñi faawoon iblis te daan ko wuy si mu xëcc mbaxanay gone yooyu bii def nii kap kap mu ngoog mu xëcc ko moom iblis taal sigaret bi mu jëxew waaw bi mu jëxew mu taal ko waaw xëcc ko ñaaroon wal ko daan ne camarade Madame Missy إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرقكم وما أنتم بمسرقي mooy alxutbatul badra bu batra boobu ibnu abbas di wax seetaani woo gaa yi ne yàlla daf leen digoon ma dig leen mu woo leen ma woo leen ngeen bàyyi ko ñëw topp ma man nag lii laa am ma leen di xamal ne nag moo fi kenn wax puuj sunu borom ne ko may ma ma wax ci ma ma wax ci ci meeting bi jox ma kàddu gi waaw seetet daani alam ahad ilaykum ya bani adama la taabudu cheytaan wa ana ala hada siratu mustaqim ولقد عدل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون نكج نك يلا نتيال نينتي تيمير ادوغون آه، نون لاي ديف لي ام نينتي تيمير اد يالو تو تبا افلم تكونوا تعقلون باي لا نودي ريبونس بان جي سي ريبونس بي نك دوار نكو لو كنا نسمع او نعقل maa kunna fi asabi sa'ir kon ndaw liy mbàkke war nañ koo yar ci muraqabatullah muy bàyyi xel yàlla yonent bi nee na ki ko gën a yëm ci ndaw yi mooy ndaw lu tayal ndaw lu tayel te du fug lu boromam ñu yar ndaw ñi ci topp yàlla moom dong engagé engagement yoo xam ne dana leen may la la mu waxoon ci addis ba juróom ñaara ngi nii bu ëllëgee yàlla na leen keral yow ma laa zilla illa zilluhu juróom ñaar ñoom ba koy ba mu koy tudd mu tudd ca ndaw loo xam ne nashaa fi ibadatillah ndaw lu teel a tàmbalee jaamu yàlla waaye moo xaat ko bu leen defee ne jaamu yàlla ndaw moo yor kurus wala kaalaw ci ndaw déedéet déedéet yaa yor sibaanu laa tastaxilu an al huda wa bil ulumi ishtagil loolu la mag ñi wax de yal na yàlla fayal ñu rek fexe ba ndaw ñi exploité juróom juróom bi ngay dund góor-góorlu ndax dee ngi ñëw te bu ñëw doo defati muy benn bi ngay wér góor-góorlu ndax wér dee ngi ñëw muy ñaar bi nga amee jot góor-góorlu ndax lee nga ñàkk jot léegi ñàkk jot de day saan ba ñu may hôpital seen ko tëdd mënut a ñëw conférence léegi nga ñàkk jot de bi ngay nekk ndawit góor-góorlu bala ngaa màggat hmm? waaye bi ngay am góor-góorlu bala ngaa ñàkk juróom yi juróom yi koy nangu retraite dañ koy pa de am déet waaye jékki baa nga ci rek mën na laa bett de ñu jàngal ndaw ñi muhaasaba muhaasaba mooy lan laa defa ko gis nga xale yi def ba yàlla nañ am xale bu ci nekk yaa ngay xool say not ni mu tolloon nag nangam ak nangam yaa ngay këraw ko di jàng ko wut ku la dolli ah boo demee université bu bu examen yi jub nga filmé leen nga am film bu neex genn waaye ngay seen mu nekk fa naan ma ne waaw nekk examen lay waajal ne ci ron garab yi léeg-léeg am ko ñëw yéeg ci kaw garab ga lu la lañ ciy daj am de waaw examen bële di ñëw nag lan tazula qadama abdin yowma alqiyama xata yusalaa an يوم الخيام كنا دكت لي نجك خاو ما شنو برنا ها تخول نغا تخاو جيستو دو غيس باب دو غيس ياي دو غيس سيري دو غيس إليمان دو غيس أستاذ دو غيس دكر بودي جيجن سنو برام نرا واو دول لاج نك سا ياي سا با يوي نو نو فوفو امول دانتيتي diw sa dund gi foo ko jeexal sa dund gi ci loo ko jeexal sa ndaw gi ci loo ko ràppal sa alal ji foo ko doon jële foo ko doon dugal sa xam-xam loo ci def loolu yàlla du yebal kenn mu la koy laajal moom moo koy laaj ñi naan ko dama doon musique quoi ñi naan ko man maa jëloon champion taasu ñu naan man dama daan théâtre sketch yi déranger nit ñi ci koor gi maa ko daan def quoi waaw ñu ne man ma ma maa doon roi des arènes waaye grand combat wax naa ko Mbàkke ma ne gars yi bëree guñ ko grand combat diggante Ndeye ak Malakal moo ci bu bëy grand combat doo si nii doo victoire eh, <laughs> kon do nga fak fi ngay daanu rek lal fa mat serif sërif rek lal mat laa comme doo daan do am machine waaw ci serigne Touba wow serigne Touba waaw dafa am mbeur mo meusa wup lamb yep ñew ci serigne Touba waaw bi mu accé ci Cheikhul Khadim ci yi waaw ñu ne ko ki lay siyaar si day mooy mbër mi man ci tund wi serigne Bamba ñew ni ñokket japp ci japp ci loxo bi and ak mom ba ci serigne njaareem yi ne ko nooy def ak mbëri mi fi mi fi tëj ñii. waaw keroog nee na kooku keroog la tekki ngem. maa la ko wax de nooy def ak mbëri ñu te ki tër mbëri yii. kooku loolu mooy grand combat. mooy combat du siècle. le combat du siècle. mooy combat bi waa ji am malakul mawti waaye nun maruxu jaak paata ñuy bëri rek ñu ne combat du siècle ah sëriñ Tuuba nee na santaane ba neex ak bakkan ak dunya ku leen fi dal daaneel nga noon yu bon ya sëriñ Tuubaa nee na seytaane bànneex ak bakkan ak duniyaa ku leen fi dal daa leen nga noon dama ne góor ga xoqal bu kaaw di ko jàngal rek mu ne ma ci dënn rus mbëkk ma ma jaaxaan laay ndeysaan xam nga uqal doon jàngal uqal bu kaaw waxaguma bay du ba mu jeex rek mu ne ma tuy ma jaaxaan mu jóg ne ma yow yow sëriñ bee la defar ma ne ko yaa ma yàq ginnaaw bi ndaw li waajalee loolu war nañ koo jàngal moom ndaw li nan lay sàmme boppam takk tubéyam ndax force boobu li feeg ndaw ñàkku ko mën naa nekk lu ne waaye ñàkku na wóoru waaw moo tax ndaw dañ koy dimbali ci mu mën a sàmm force am boobu yaa ma'shara baax man istataa minkumul baa'a falyatazawwaj ku am loo joxe ndékki takkal mm-hmm. <laughs> xam nga sa papa mën naa rees añ beeg reer nga rees ndékki ku am loo mën a joxe ndékki takal boo xëyee jox ko mu ndékki waaw ngeen bokk xaaran añu paa bi <laughs> ah waaw booy door a takk <laughs> ngeen jokk di xaaran añu paa bi loolu kero ba yusufa tollee ci euh, fii ndaw lii toll jigéen ñi def ne ko hëyta lak منكو ما عصى الله إنه ربي يلا ترى لولو كو وخكرو نفس نكو يو ندك سيرغا يو براسيو يو دون دم لولو كو وخ دون دم فن ها منكو إنه سجكر ربي مويسا من جاتيكي بلا جاكا وخوش لولو نكو يدنغل نوو waaye dañ ko ci dimbale nag lu bari ci yaay yi nag duñ dimbale seen doom foofu yaay damaa bëgg jabar nga ne ko jabar la waxaat ko ma dégg damaa bëgg jabar foo koy dugal demul liggéey mu dem del sawaat beneen yoon yaay damaa bëgg jabar gis nga jëkk góor ak jigéen ku ci wax ba tudd sëy mayel gaaw am na lu mu yëg mm-hmm. <laughs> yaay damaa bëgg jabar man de li ma wax bu fekkoon maay sa yaay koo bëgg nga ne nogay ma ne ah, man de sama xel moon ci diw nga ne man de nogay laa bëgg yàlla xam ne du ma la delloo ginnaaw takkal laa lay wax parce que boobu nga toll buñ la ci maye gi nga bëgg koo jur mën naa doon wàll yu mbaa jàmbaar mhm. góor bi mu fi fi mu mooñoo ba bëgg nit ëmma mm. ñu bëggalee ko ko may ko ko ja mën naa jur wàll yu mbaa jàmbaar waaye doo ko fi takke kii nga xam ne yaayam yorut pañe lu suukar baraada damaa mën a teral ah daa dem may ko ndeysaan koo xam ne kii ba ko xoolee du mooyu waaw jigéen yoo xam ne ñuul na ñaaw na gàtt na jëbërëy na lex yi rëy loolu sax mu ëpp ko <laughs> dañoo yendu kër ñu Abdou Lahad radiyallahu taala anhu ñu toog ba añ di bëgg a jot am ko fu ñëw jigéen ne ko Mbàkke man day damay ñaan lu jëkkër sëriñ ba na ko toogal fee ba ba àggale ci gan ñi 15 minutes après am góor gu fa ñëw ne ko Mbàkke man de dama ñaan lu jabar sëñ bi ne ndaw si jege si mu ne ko mbàkke seetal ma keneen lay lay ah waa ji daal dafa dafa dafa dafa dafa nobaabalu il n'est pas nobaabal ndaw dañ koy jàngal nu muy sàmme boppam buñ ci noppee nag jàngal ndaw nu ñuy fonke xam-xam ak boroom xam-xam jàngal ko ndaw mu fonk xam-xam fonk borom xam-xam ndax adduna lu fi dul xam-xam du zikr amu fi njëriñ ñaari wi rekk fi nekk a zikr wa maa waala bu ñu paree ñu tàggat ndaw li ci bëggum réew xam nga tàggat ndaw ñi ci bëgg seen réew wan leen nu ñuy bëgg seen réew loolu nag sëriñ see koy def ak politiciens yi ñooy fexe ba ndaw ñi bëgg réew mi ndax rajo yeeg yi dañuy fexe ba ndaw ñi bëgg bitim réew ñu xëllantoo leen Europe ndaw ñi fi ne am na ñoo xam ne boo ne woon Messi dañuy kontaan mm-hmm. waaw te suñu footballeur yii boo ci tuddee kenn ñu ne ko cam lu tax dañ leen dul wan sunum réew te yàlla nee na ku fi dëkk cim réew néexul fexeel mu neex soo fexee fexe néexul jóg fa toxul kon nag ndaw ñi ñu tàggat leen ci bëgg seen réew te xam ne moom lañu am ku leen ciy tàggat sëriñ seeg politiciens yi waaye politicien boo fi gis fi nekk nii bu sojee il a ah bu ko dégg jamee il a Amérique bu xaañoo il a Maroc bu sibburoo il a waaw ñun ñi fi nekk fii kon wóoluwuñu leen te réew ñaar buñ leen wóoluwut àdduna tukki la fajkat ak jàngalekat fajkat ak jàngalekat te am na ñooñu wóoluwuñ suñu jàngalekat yi moo tax ñu yóbbu seen doom ci privé yi wóoluwuñ jàngalekat yi neel benn wóoluwuñ fajkat yi moo tax ñu dem ci clinique yi ak bitim réew waaw lu tax wóoluwuñ leen parce que ki nga xam ne yaa ko jox fi mu toog te xam capacité yow doo ko jox soo yaram loolu képp la kat waaye ëmb mi ci xamul dara day ñëw ne damaa soj mu naan la ñeste dëkku laan mu naan la téenal ngay téen ndekete moom xamul fi soj di nekk mooy erreur médi erreur médicale yi ngeen di dégg looloo koy waral ndax yow xam nga kii yaa ko fal bi nga koy fal danga fekk mu ne ca kaw di di di raax nga ne ko kaay doon jàngalekat doo ko jox sa doom am de mhm. loolu rek la de waaye bu ñu wóor na jàngalekat la jox ko sa doom ji mhm. fajkat ji noonu dong la nag ngeen baal ma waaye dëgg la dëgg la de ñu yar ndaw ñi mbàkke ba seenu làmmiñ du ñaaw al bu'du ani laani wa takfir dañu yar ndaw ñi ba seen làmmiñ du ñaaw luy làmmiñ du ñaaw duñ xaste duñ saaga duñ fen duñ nettili ah ku ñaawoon làmmiñ du wax leen ko ñu def ko naaru gànnaar rek naaru gànnaar boo ko waxee lu ñaaw ba doyal mu ne la ak loo ci man yow ni nga ñaawee si biir bu bi nanga ma ke naanga mën a la àkk yow waaye ndaw ñi loolu lañ la war tàggat ba seen làmmiñ du ñaaw du doon góor du doon jigéen ndax yoon te ba nee na laanul mu'mini ka qatlihi ku wax nit kàddu gu ñaaw rey nga ko waaw te nit léeg-léeg wax la kàddu gu ñaaw penc mi bind ko journaux yi jël ko rey na la bu fekkee tey nit daana ci koñ bi nga ne ko dëmm nga génne nga ko dëkk bi rey nga ko dañ koo suulul rek ah foo yëg ne fa la dem nag nga ñëw fa ay ah, yéen xam ngeen kii sun koñ la la jóge ba mu jeexalee xale ya ay wajile Sénégal Mbàkke ah mbokk suñu tënkee mooy ndaw dañuy jàng moom mooy kan jàngal ko former ko defar personnalité sax siyam defar ruuxam defar physique am defar ay jikkoom teel koo responsabilisé la ca gën a gaaw nag mbàkki mooy may ko jabar jabar jabar day nitam nit Mm-hmm. Mm-hmm. déggoo ni tudd jabar ah, ah. barde <laughs> waaw jabar xoolal jabar mooy jàkk barde gis nga fi nag ku fi football te amoo ay supporter mm. dañ lay dóor de jabar nag mooy supporter boo xëyee di liggéey mu ne la najaa yaa ngi xëy def la lii fudd na si demal te ñëw ak jàmm waaw nga sawara boo ñëwee fekk ko fi bu mel ni na koy boo ñëwee ne ko accident mu ne la ancien directeur bu soof bi nga ne ko ma nga fay soof rek sa tension bi commencé wàcc <coughs> ancien directeur bu soof bi nga ne ko ma nga fay soof rek tension bi commencé wàcc waaw mu commencé nag di la di la wax baat yu neex yi nga xam ne mooy dindi tàngooru ji góor ak i mer loolu la suñu yaay Xadija waxoon yonent bi kër bu mu ñëw ne ko damaa jommi ba mu jógee ci xonti ma iqra mu ñëw ne ko damaa jommi yéen suñu yaay Xadija ne ko laa wax mu ne ko damaa jommi mu ne ko yàlla du la toroxal mukk ndax mosoo fecc kóllëre mosoo def lu ñaaw ci koy ci te yàlla lu war jëmmi woo de yonent bi dafa rawaat ne ko ah, ma ndekete ko toogal hmm. ay boo fekkoon nogay ba mu ko aman nag aman na tànk day toog rek walla kon wax ji insaaniye bi nekk ci yonent bi la bëggoon mu nekk ci ñun sunu roo nite sunu yaram nite sunuy xalaat nite ñu lay tàmm ñun ñépp mën a xeex sunu noon bi ñu tuddee bakkan ak bànneex ak duniyaa tege ci kaw ndaw yi mbokk yi bu ñu leen tàggatee lu mel nii ñoom ñooy kennu yey yenu société bi ñoom ñoo ko yenu lu lu société bëgg rek ndaw ñi mën koo def te bu boobaa danañ mën a am génération boo xam ne ci ndaw ñi dutuñu mas am dutuñu ko mas am benn yoon waaye nag nañ ko laaj yi lislaam mu wax nu ko saxsiya islaamiya boo xam ne mujtama bi maanaam pénc mi danañ ko mën a jariñoo mu di leen jariñ fu mu fekk jigéen ju jigéene mu mën ko jàppale ba lam nekk junj naa ko démb kere ba Moussa demee Madiana fekk fa xale yu jigéen ya ñuy root dafa xam ne lii ñuy def du liggéeyu jigéen mu jaaxal ko mu ne yéen lu ngeen xewle xale jigéen ne ko ah sunu bàyyee màggat ci amul jëkkër mu yëngal boobu ne wax ngeen dëgg nag fasaxaa lahuma fasaxaa lahuma mooy mu wëggal leen xar ya ak lépp su mata wala ila zilli bàyyi leen fa dem toog ca kër mbokk yi kon suñu tàggatee ndaw ñi bañ mel nii daañ mën a tege ci système bi yonent bi doon jàngale mën koo dund dund ko seeni mbokk tege ci yoon jàmm ne ñooy ñun ñëpp nu am jàmm yàlla nañu am jàmm ngeen am jàmm yàlla nañu am jàmm ngeen am jàmm balaa ñuy dem di julli ji nu conclure ci li nu yëkkati woon li nu yëkkati woon mooy fexe waxtaane lislaam ak ndaw ñi wala ndaw ñi ak lislaam wala lislaam akuk ndawe juñu naa ci wax ji force yi nga xam ne moom la ndaw di am ci buñ ko teelee euh, responsabiliser su boobaa du doon roykat boobu lum gis roy ko waaye doon kallun ala mawla yooyu dina xàmmee ba force yi nga xam ne moom lañuy ñuy ci moom li koy sàmm mu mën caa tege te bu ca tegee keneen du ko ca teggi loo ko mooy ni addunay doxe dangay defe defee ne ku ci bokkut bokkoo te boo ca xasee bokk ñaare mucc da lay daal di jafe kon ndaw lu góor ak lu jigéen walla kullin darajatun mimma amilu na ndaw xam fi mu tegee ñu teg ko fa teg ko ci yoon mu dem te ku yar ku ne lañ la yar danga koy mokkal te man ko muus rek la kenn mënta yar ba génnee jikkoom ci moom loo ko yar yar yar lu tey tey tey bu siina jinax de ko acc moom muus yeneen ji des yëpp ku ci ne mën nañ laa yar ba nga ne noj nit nag moo ci raw nit na ku ko bëgg yar yaa ngi tàmbalee ci bañ koy tànnal yaayam bàyyi moom sax daanaka dees na ko tànn waaye jërta tànn waaye yaay moom mbàkke moom nañ ko tànn ñu tànn yaay ju yaay ju jonge te ñeme njaboot yonent bi ko wax te zawwajul wadud al walud takk leen jigéen ju jonge te ñemee njaboot jigéen ju jóge mooy jigéen joj dafa woyaf maanaam rëy rëy lu wëg du jaay jom jëkkër ja daa woyaf te ku takk ku jonge sawar ci joxe ak ay te ko sawar ci joxe ak ay bari njaboot te lislaam ba suñu fi ne jigéen ñépp ku ci nekk minimum nga am onze gos hmm? minimum nga am onze gos wala bok maximum nga am 13 gos tubaab bi nak bu señon deux gos nga am waaw tubaab bu señon deux gos nga am mala legi la yem na fi planifier tubaab bi waye ki yar da wara beuri bëri ñun fi ne suñu réew mi tubaab bi dugal ci planning rek waaye ñun teel na ci ñun. xaw ma treize millions xaw ma quatorze millions. waaye fii ne bu ñu fekkoon ñu nekk ci vingt cinq millions. kon yëpp dox. gis nga yi ñi fi indi mbirum planning di ko wërale ci dëkk yi danoo àgg ba Chine ne comme fii daa am xiif. planifier leen chinois yi ne bu nit ñi baree rek xiif jóg fi ku ko wedd rek amal ñeenti taaw yu bokkul ndey te nga takk seeni yaay ku ko weddi rek léegi chinois ya lank na ñoom duñ planifier di jur ba jur fu dara nekkul léegi ñoo yàkkal àdduna si ay doom fi kulli xaara min alxaaraati alaalamiya chinois chinois yaa ngi fépp daa mel ni sax da ngaa xam Dakar doo nga lañ nekk nekkuñ Dakar doo nga ne fépp ndax bu bu njaboot baree rek pexe dugg ëmm jigéen ju am lu ëpp juróomi doom yàlla fay la ci sa biiri doom ku wërsëgam ëpp wërsëgu bàyyam loolu moom sama baat kaw ni poto jigéen ju am lu ëpp juróomi doom sunu borom fay la doom ju la ëpp wërsëg ëpp ko bàyyam maa la ko wax de waaye un gosse deux gosses mu yem fa kii picso ah ku jigéen kii taf-taf wala naf-naf wala naf nafra taarixum lan bu kenn kër dëngee yóbbu ko ca des yooyu yooyu baaxul te it ku bëgg yar ku bëgg a yar da ngay ñemee nampal moo tax bu yonent bi ne nga takk ku joŋee te ñeme njaboot ku ñeme njaboot day ñemee nampal xam nga fi ne foo xool ci dëkk bi rek ñu ne nef nañ ci wax ba wax leen ci waay nag jaasir lañ waroon a wax jaasir mooy jigéen ñuy seyti mënuñoo am doom loolu lañ war a wax waaye neef du feebar ëmm neef neef du feebar de yonent bi de mësu koo fajal faatima doomam jël te am na doom mu tudd Xasan ñaar doom ji tudd Xuseynu mooy Asan mu ndaw ndax daanaka at lañ magantee Assane a ngi nii Ousseynou ngi nii. Hmm. Assane mu mag ak mu ndaw ndax at lañ magantee. troisième doom ñëw Mohsin ñetti doom ci ñetti at boo ko waxee fi ñu la ëw léegi boo amee benn doom rek gis nga tubaab bi ñëw eh, ci tubaab bi moo tax xale yi foog nu bàyyi xel loolu dañu dañuy dañu occuper seen temps boo déggoon na ko jigéen bi nga amee juróom benn at dañuy dugal école ngay jàng ba am 35 ans door na am liggéey walla sax stage daal def nag demande de jëkkër boo amee chance am jëkkër sa doom ji njëkk dañ lay opérer sage-femme bi tiim la ne la planning ci métier bi nga ne ko ah, ah. mu dóor la ko. boo amee chance man nga amaat benn boo am chance fa ngay doxe waxuma fa ngay doxe sax doo amu ci doom waaye fa ngay doxe sax ibaadaat sa jaamu yàlla mu perturbé lépp loolu nag xel a koy def ci nit dama laa bëgg def loo nangam nga ne pour la loolu ma waxaat ko yonent bi nee